Maintenant, je vais donner la parole au représentant de Tahaou Sénégal, M. Khalifa Ababakar Je remercie M. le Président de la République. M. le Président de la République, mesdames et messieurs les responsables des institutions, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, chacun, chacune en ses titres euh, grades, je voudrais vous saluer et vous dire le plaisir qui est mien à me retrouver ici parmi vous pour parler du Sénégal. Idrissa en s'étant exprimé en français, je vais moi alterner je suis membre du F24 je suis membre de yewi Askanui. et pourtant je suis à ce dialogue là en tant que Taxawu Sénégal dama ñëw bokk ci dialogue parce qu'il s'agit du Sénégal de mon dialogue parce que je fais partie dans cette salle de ceux qui pendant longtemps et toujours ont compris que l'UNEC d'un koy koy pour du parce que je avec moi Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis membre de l'opposition que vous dites radicale. Aujourd'hui, cette frange de l'opposition n'est pas ici lu tax nekk fii war nañu interpeller ku nekk ci ñun je vais essayer de tenir les trois minutes les cinq minutes alors lu tax ñëw ñëwuñu mooy moom moo am solo loolu la ñu war parce que dialogue yi am yëpp ñëwoon nañu pourquoi la défiance de ñu manifester pourquoi le doute bi ñu manifester ba tax tey ñëwuñu man rek ma ñew ci yeewi askan yu fekke et j'assume ça pourquoi monsieur le président loolu lañu war réfléchir parce que du guleet ñu dialogue du guleet ñu toog di wax daan na ñew ñëwuñu ñu bari liñ lay wax mooy dara beesu fi dara bees y a aucun sujet nouveau bu fi bees ñu ngi ci dialogue bi depuis toujours ñeent ak juróomi problème yi nga xam ni moom moo amal solo moo ñu amal solo dañ ko waxtaane waxtaane waat ko waxtaane waat ko te amul solution moo tax ñu bari ci ñoom ni ma ñun duñu dem man leen déet waxtaan nag moom du am tàyyi du am sonn da ngay waxtaan rek di waxtaan rek di ngeen juboo ñun loolu la ñu gëm moo tax ñu ñëw fii monsieur le président la question du troisième mandat du lu bees il faut que nous waxtaane ko il faut que nous ko mënul que ñepp bok ci élection bi mënul nous ñepp bok lu war la que parrainage bi nga xamni problème le fil, day indi il faut que nous waxtaane ko mënul nous li mënul pas aussi les modifications des articles 57, 29, 30 et autres mënuñu ko bañ waxtaane parce que problème la li mënul ñàkk mooy ñi nekk ci kaso yi presque cinq cent personnes ay politique ak ay journaliste mënul ñàkk parce que na xam nga réew mi su fekkee dañ ko bëgg a doxal il faut que ñu bañ ragal di waxante dëgg suñ nangoo waxante dëgg rek danañ avancer fii li am solo mooy en tout cas ñun suñu teewaay dañu ñëw pour liggéey pour waxtaan pour juboo pour Réumi Djem Kanam. Parce qu'il faut que nous rassurions ce pays. Il faut que nous réconfortions les populations. Il faut que chacun comprenne que Réumi est dañ koy qui pour mu kanam merci beaucoup M. Khalifa Ababakar Sall wax donc ci Sénégal mais aussi membre de dit F24 F24 nag xamaguma lu mu doon lu muy tekki mooy les anti troisième mandat c'est ça Donc dugal leen ko ci débat bi rek nee naa leen fii amul tabu amul luñ dul waxtaanee xanaa kay leer na wax leen li ngeen bëgg majorité bi dem mu ngi fi ñu waxtaan y a pas de tabou il n'y a pas de sujet de sens interdit donc vraiment je ngi lay remercier si position responsable bi nga wone xamaa kilifa noonu lay def léegi nag ñu jox kàddu gi monsieur Mamadou Diop Decroix si turu AJ/PADS moom it si opposition bu tàng bi la foog na wala bu